asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñooy ànd ak euh, saa su ne les programmes de Khass TV di seen télévision bi nga xam ni da leen indil ay information yoo xam ne ji lépp lu soxal société bi rawatina den ci dox indil leen ko ñuy nuyu waa euh, sénégalais de la diaspora yëpp di nuyu tamit ñi nga xam ni ñoo ñoo ñuy seetaan ci biir réew mi ak fu ñu mën di nekk ci région yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di euh, nuyu rawatina tey nag ñuy nuyu la communauté catholique nga xam ni tey dañu am gan gu mag gan goo xamante ni ji yaakaar naa ni sénégalais yëpp sopp nañ ko sénégalais yëpp jox nañ ko bopp waaye ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel moo xam jullit la moo xam chrétien yi la euh, tey dañuy daal jox kàddu ki nga xam ne rek mooy suñu euh, père suñu papa abbé Jacques Seck moom la ñuy jox kàddu gi mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi waaye nuyoog mbokk chrétiens yi waaye nuyoog tamit euh, mbokk jullit yi nuyoog waa Sénégal ak waa adduna laata ñuy dox ci li nga xam ne rek mooy laaj ak tontu yi nga xam ni war na dox suñu diggante ñu jox la kàddu gi nga nuyoo euh, Père Abbé Jacques Seck. waaw eh, yéen mbokk yi may déglu ñu nekk Sénégal ak euh, ci yeneen dëkk yi. xale yi nga xam ne ñoo yor télévision bi ay ñu baax la lañu moo tax ñu ñëw jël ma ndax ñu waxtaan yal na ko yàlla barkeel ba barkeel équipe am barkeel rajo télévision bi le ñu mu barkeel yeneen télévision yi parce que télévision bu ñëw daal indi na loo xam ne lu baax la luy dollu ci yi yal na télévision bi ak yeneen daal fexe may ñu be ñu gën a soppante Sénégal gën di demalante di dimbalante di mu ñanante parce que amul ñu mot su ko defee nag incha allah te yi ak rajo daal ñooy permettre baax gi jëm kanam lu bon dañ ci réew mi sori réew mi yal na yàlla barkeel ñi animé suñuy télévision ak suñuy rajo amin euh, kon gannaaw ba mu nuyoo rek euh, dañuy daal di ñëw rek euh, rapidement ci laaj yi li nga xam ne bu ñu dajee kilifa Euh, dont am na ñuy dégg per Jacques am na ñoo xam ne ji xam nañ ko ci jàngu bi waaye ñu bëri tey dese nañoo xam carrément kan mooy euh, per Abbé Jacques ñu bëggoon rek nga wax ñu euh, très rapidement sa jaar-jaar ak mm-hmm. fi nga xam ni mooy sa cosaan bu ko defee loolu tamit dina gën a xam kan mooy per Abbé Jacques Seck. waaw muy dégit l'abbé Jacques sek Seck et palmarin Ladeka. ci Palmarin am na ñeent poti village suma village tudda Sam-Sam Sam-Sam-Sam mooy Zam-Zam Zam-Zam mooy teenu Makka suma maam Abdoulaye Ndour ku sanca parti bu ñuy wax Sam-Sam ci Palmarin village boobu le moom moo jëkk a nekk musulman Palmarin jële woon fii islam ci Bargny yóbbu ko Palmarin ba mu demee ay naw la lii lii mu indi mooy lan nag fekk na boobu amagul musulman foofu le alors waaye ñu dem a dem a dem ba moitié dëkk ba yëpp nekk musulman li ñu ne ah xanaa yàlla moo ñëw de naka noonu man euh, ki njëkk a nekk élimaan palmarin Ababacar Ndour moo takkoon euh, ami Tening Seck ki ma bokk ndeg baay euh, ba ñu amoon ñaari doom malheureusement doom ya faatu te ma bëggoon doom yi dunda pour ma may tiitaroo Sénégal ne am na ay jarbaat musulman dañu xam ne parce que noonu la ñu bëgg mu réew mi li ma mun lay yoti euh, dolli mooy boo demee tey suñu kër kër njiitoor euh, sam-sam di nga fekk Demba sek Demba sek sama doomu mag la ma ma dem Palmarin on jour ana Demba mu ne Demba dem na Casamance jàngi alxuraan ma ne ko du foofu la ma fexe ba jot téléphone am woo ko mu ñëw ma indi ko fii Dakar dugal ko ci benn batt ma ne ko demal Tunisie foofu ngay amee xam-xam gu xóot a xóot jëm ca islam ak tam ma daal di dem euh, Tunisie jàng ba mu xóot mu ramassé yëpp ñëpp si nag ma ne ko xaa ah, kasa ma jël ko yebu ko Anne Mariste euh, ci ci euh, Victor Cabrita mu nekk Anne Mariste professeur islamologie ak langue arabe di def di fa def ba war a a dem retraite mu ngi Palmarin léegi nag mu nga Palmarin yaakaar naa moom rek moo fa nekk limaan boo xam ne <laughs> bu weer bi dee ñu fay la sa ah, waaw waaw parce que ah, fi fu ma ko jaar fi ma ko woon moo euh, moo tax itam boo demee mu ne la béja ak de kenn xamul suñu doom bi moo ko woon euh, euh, Tunisie def lii ma ne ko noonu loolu war a am musulman chrétien bu ñu amatul jàmm du sotti parce que ñoo bokkande bokk bàyyi di dañ daan wax man maak suma nit ñi ne fii sam-sam tur bi tur bi nekkateenu Makka maa tudd zam-zam zam-zam ndox moomu la comme zam-zam nag dafa neex ma ne kenn duñu indi yëfu saytaan duñu xaaj duñ ko nangu ba tax li ñu bëgg a daal du musulman nga demal ba jeex du catholique ba demal ba jeex di jàngee cosaan séeréer demal ba jeex waaye ñu ñu fexe nag ba kenn du ñu yàqal suñu dëkk nag te ah raaxaka dool nag gërëm nañu parce que pour le moment daal bu waxee ne Sénégal dañu ne ah ñooñu dañu bëgg chance dañuy di demalante ku xewle feet ñeneen ñi sax duñu toog a yàlla di toog a jox leen effectivement boo ñu amee feet di tooga duñu toog a mbaam parce que musulman du ko lekk ñu loo xam ne daal ñëpp dañ ko mën a partager lii yëpp ngir réew mi gën a baax. ndax senegal gën a baax ci Afrique noire bu ñuy wax lu baax daal ci diggante ci xeet yi ak diine daal ñu ne ah Sénégal de wax dëgg boo leen ci rawee daal est-ce que dina la jëriñ parce que yàlla may na leen ñu déggoo bu baax a baax a baax foofu la ñuy gis nit mu dem fayal nit école katolik te juru ko foofu ngay gisee nit man de euh, famille Tidiane Pape Malick Sy waxoon man de sumay doom yi sooru Jean nag noo leen di yar est-ce que Fatuma doomam nag ma tey ko ci loxo ma ne Fatuma ca kaay ñu dem ma ne ko Fatuma ah foofu nga mu ne maam Labe xanaa Jean d'Arc ñu dem ma ne ko mère Paul sama doom a ngi nii Fatuma ta daal pour gàttal wax mi foofu la nekk ba am mbak te yaakaar naa sey na be ay doom ay doomam sax ñoo ñëw continuer fii mu demoon formation Sénégal ni la ñu bëggee réew mi xam nga kooku loo wax lu ñaaw ci catholique du ko nangu dee ndax bàyyi na fi l'école lay kii on doo fay ñëw ci suñu école papam nangu di fay école catholique ba mu am ca bap o yolo kon nag suñu dëkk daal raaxa ka dolli baaxagum na ñu ñaan yàlla mu gën a baax islam gën a sakkan christian bi gën a sakkan diine gën a jëm kanam gën a jëm kanam ñu gën a am jàmm gën a am sago gën di muñalante di malante di defante lépp lu baax incha allah loolu yaakaar naa ni am na solo ci li nga xam ne rek moo jëm ci euh, li mu wax si diggante chrétien yi ak euh, jullit yi nga xam ni saa su wax ju rafet la ciy wax euh, saa tamit da ciy indi ay kaddu yoo xamante ni ji rek kaddu yi defar la waaye kaddu yi yokk diine yëpp la parce que diine lépp yàlla dafa wax ni ñi nga xam ne rek ñooy ahlul kitaab te loolu bu ñu ko waxee rek yaakaar naa mooy ñëpp ñi nga xam ne ñooy aji gëm yi ak gëm-gëm bu ñu mën di gëm rek gëm nañu yàlla. maak suma ɗum usta ndour ñuy dem côté ngee côté ngeeñan fi ñu fi ñu duggee nag euh, am benn village bu tudda Madina Fadial bañ fa jaaree ma gis ne ah kaas bi toiture bi dafa yàqu woon ah ba ñu demee ba pare ba ñibbi ba ñu ñibsee ma denda ma jënda douze euh, euh, tool ardoise yooyu le douze yoo xam ne dina mun a couvrir ko ma dugal ko ci ñaari saret ma ne ko oustaz demal ba ca Madina Fadial nga woo élimaan ba jox ko ne ko lii day ñoo ko def ci juuma bi eh, xam ne daal toiture bi dafa yàqu bañ ko ko waxee mu jooy di la bés ak léegi bi ban façon nit la <laughs> wala nit rek la nekk parce que la bés ak am na ay parents musulmans ma soeur aînée a épousé le premier imam de mon village ma di ko tiitaroo ba tax 1952 53 suma papa ñëw fii ndakaaru dem ndar bay ñibi ne foog mu nekk musulman mu jël musulman ñibbi ma ne ko papa jërëjëf yaa nga ca islam kañ maa ngi ci isa dere du dugg suñu diggante su ki boo demee suñu kër di nga fekk Demba Seck ki ma wax ne moom maa ko yóbbu woon Tunisie pour mu gën a jàng alquran jàng bi am retour di nga fekk euh, euh, Ousmane Seck euh, ci mag ñi nga xam ne ñoo jëkk nekk musulman palmarin lañu maanaam daal li may tiitaru mooy am nañu ay labe ci suñu kër ay sori ci suñu kër ensuite Demba sek wees na Elimaan dafa dem ba fa bu gën a xootee dem na Makka ba mu nekkee Tunisie la daan naa ci yoos comme soriwul aji no loolu yëpp mu indiwaale ko dugal ko ci enseignement privé catholique an mariste ba léegi mu nga ca retraite retraite boobu na fan la jógee ana ci suñu école catholique te moom Demba pourtant musulman la waaye ñun gisuñu loolu le nit la ñu gis buñ ko mënee defal lu baax nga wane ci ñu defal ko ko bu dee musulman xayrun bu dee catholique xayrun waaye daal diine du ñu jaxase duñ ko nangu. Euh, ci loolu yaakaar naa leeral yi am na solo ndax euh, suñu père abbé Jacques Seck euh, am na ay voyage yu mu jë jot a ci li nga xam ni rek ci maanaam bëgg-bëggu église bi la jàngu bi. mu dem Rome dem fépp pour gën a euh, euh, doxal li nga xam ne mooy diine ci at yële dans les années soixante dix soixante neuf ci lama ma kas naar ci andun yóbbu woon Rome ma dem pour gën a xóotal njàng mi alors fi ñu nekkoon nag amoon école boo xam ne euh, ñoo jàngal nit ñi na ñu nekkul musulman di jàngal islamologi ak langue arabe ca ñooñu laa xamee woon benn benn euh, benn rabi catholique bu woon Père Maurice Bormans français wa France la woon boo ko waxoon yëfu def grammaire arabe nag dans le proche orient amul ku ko ku ko dàqoon loolu la ci am nag laa profité woon bëggee na jéemantal naa ko grammaire bi ak xam te benn bés mu di ma seet bu mu ne Jacques waaw ardeur bi nga def ci jàng alxuraan ak euh, naxwa bi est-ce que doo mujj benn kam musulman ma ne ko on verra bien bu ñëwee bu ko bu ko kañ waaye ce que mënuma def daal moitié ah ah bu may dem daal damay dem ba jeex naka noonu la ba ma ñib see fii ñu fal ñu eh, ma cathédrale ma def émission Maodo si la dégg may cité ay suurat mu ne si ma la bese kii lan la ma ne ko ah mu jox ma loxo taal ko loxo ñu xaritoo moom grand imam de Dakar. moi euh, vicaire général du canal Thiandoum ñu dem dem ba yàlla jël ko soxnaam ne kenn du ko rob tant que taxawul ma ñëw ñu yóbbu ko ba cimetière ma ne ko roi deuxième cas Abibou Tall day ñëw Popenguine at bu ne te du xaar ñu invité ko si ay setam nag am na ñu ñoo xam ne maa leen fayal l'école Joal ak ñeneen ñi fii euh, fii Dakar dans la banlieue de Dakar alors moom it ba mu faatoo soxnaam bi nekk Thiès ne ko. dañ ko war a yóbbu euh, Louga waaye duñ ko jël yóbbu Louga te la besek ñëwul hmm. ma woo Oustaz mu ñëw Oustaz Ndour ñu jël suma oto ma jiitu ko ba ca Louga hmm. ñu dem ba ca cimetière ba ma ne ko fii laa mun a yem nag hmm. lii mooy senegal waaw Habibou Tall bañ koy rob soxnaam ne foog la besek taxaw aha wax na dëgg Maodo si le grand imam de Dakar soxnaam ne ma la la kañ jaaxaay itam la kañ bañ koy ma taxaw lii lu moo war parce que li ñu bokkul mooy diina bi de diina yu nag yoru ko xol bi moo ko yor de comme xol bi moo ko yor daal fu ñu gis waay daal ñu may ko ciir ca bàyyi ko cax ci diina yi daal du lii nga demal ba jeex bu paree nag nga xam ne ñu waa Sénégal nag ñu ni jaxase nu ngir diina diina bi dafa war a dëgëral li ñu digaale deret bi ñu bokka tool yi ñu bokka parti ñu bokka lu ko nar a yàq daal ñu dañ koy daxa ci jabite naka noonu moo tax ma may biyee Ousseynou Ndour loolu man du dem Makka boo demee ci ay kalam école am man la ma Elisabeth Diouf may 53 ba table ban gisuma keneen ku ma may ko Ousseynou Ndour te table bi ci nekk nag la yàlla xam na ne <laughs> waaw mhm. première dame mhm. may ma ko ma ne ko defati nga de mhm. yow ak sa sa bi Abdou dinañ leen ñaan nga xam am na ban yooyu ma nekkoon nag damay gi ma dem may ko Oussa Ndour ci école franco arabe am Sénégal a ngoog. <laughs> allah eh, ci loolu eh, comme niñ ko waxee nii eh, sànq sa biir kàddu ñëpp xam nañ ni buñ la déggee ngay wax da nga sori trop ci alxuraan. am nga ci maîtrise ñu bëggoon a xam da nga jàng jeexal kaamil bi ak noo ko jàngee ak nan la la dikkee. waaw jëm ci arabe bi. wax naa la Père Maurice Borman moo ma ko jàngal Père Maurice Borman nag ñoom ñoo doon jàngal ñeneen ñi naxwa ak littérature arabe te nekk catholique bugg rek lu baax Tunisie ce qui fait que bi may so a ñib si fii saar boo ma indi dina la wax kañ kañ la ko yonent bi jot ci el la ak li taxoon mu def ko ko comme nag léegi nag dama xam tuuti recul wàññeeku na waaye nag awaa ah, wax dëgg naa ko mhm. parce que dama ne mënuma soppa musulman yi mhm. soppa ko nga xam ne moo takk ma grande sœur eh, Ababacar mhm. te xaw ma lii ta waaw kay waay boo buggee soppa nit da koy xam bi xam racines yi ma ne ko bu ma moqalee alxuraan bu ma rumbuj naa mun a respecté musulman yi te naka loolu laa defoon itam yàlla may ma benn baal jaañ may ma biyee makka ma ne oustaz am billet ma xab boo demee nga laalal ma xeer bu ñuul ba parce que mënu ma dem laal ko ba mu ñëpp si papa mu ne ma ah ma ne ko laal naa xeer laal na ko ma ne ko alhamdulilah mm-hmm. nii daal lañu bëgg Sénégal mm-hmm. bu ñu kenn jéem a xaaj nag duñ ko dañ ko doon nangul mm-hmm. bu ñu yàlla boo lu ñu gën a déggoo allahu la jaxalakum ummatan wahidatan walakin waaye ko nag fa sabikul xayraat rawante la ci jëf yu baax parce que il la yaqum jami'an parce que ñun ñëpp ci moom lañ jëm di alxuraan lii alxuraan moo koy wax de lii may wax suuraat la kon nag kenn duñu du boole daal jàmmali na am incha allah. <laughs> am na solo eh, ci loolu yaakaar naa leeral bi leer na ci côté boobu eh, mën nga ñu indil rek li nga xam ne day day neex sénégalais yi. muy catholique bi muy muy jullit bi. Mm-hmm. sooy wax verset coran yi nga dellusi tuuti rek ay quelques versets. ilaa fi Quraysh إلى بخيم ريغ لتشتاي ويو فليقبلوا هذا البيت الذي أرموا من جون وآمنهم من خوف moo ko ne nag mais comme dama def au moins une quinzaine d'années def dafa pratique moo tax mu dem waaye bu ma ci defee une semaine rek day dellu si waat waaw parce que yàllaa ko moom bu ma ko waxee oustaz ma jegee day kontaan ak ñeneen ñi Demba Seck bu ko déggee di kontaan na parce que maa xam homme bi ba may ko biyee ba mu jàngi Tunisie ba mu ñib see ma def ko professeur Anne Mariste ba mu jël retraite boo waxee lu ñaaw ci ñun rek du ko nangu di loolu am na solo ci ay leeral yaram dawatina comme ni ñu koy waxee ndaxte ñu ngi toog ak kilifa gu mag ñu ngi toog ak koo xamante ni ji également église bi euh, fonk nañ ko jox nañ ko cër waaye tamit euh, islam jullit yi tamit euh, fonk nañ ko jox nañ ko cër ndax ni muy doxalee ci diine yi amu ci xaj seen te lépp li mu ci jublu rek mooy rafetal ak boole goo xamante ni ji lépp yàlla moo tax mu koy def te yàlla moo ñu boole ñu ñëpp ci benn buum. Mm-hmm. kon euh, muy abe Jacques Seck moom la ñu toogal tey fii ci cathédrale bu mag bii di Ndakaaru euh, papa mën nañ ñëw ci sa bi nga defee sa kii euh, sa carrière. ci fi nga xam ni mooy église bi yaakaar naa ni fii ci cathédrale nga defee sa sa sa sa sa sa sa kii sa carrière. Euh, si si li ci gën a am solo waaw ba nga jël retraite ba tey yaa ngi des fii ci ci ci biir cathédrale bi mën nañu wax après la retraite de abbé Jacques Seck mm-hmm. ban rôle ngay continuer di jouer ci biir euh, communauté chrétienne waaw cest à euh, su dee am na loo xam ne dafa jëm ci fexe ba ñu déggoo noom rajo bu mel ni par exemple bu ñëwee dama ciy ñëw ensuite nee naa la feetu e, musulman yi bu jotee Oussa Ndour day ñëw ñu dem Tiwaawoon ay ati at laa koy def te tant que tant que yaa ngi dégg dama ko di def waaw tant que Ousmane Oustaz mu ngi fi itam dañ koy def lu tax parce que bu ma fa demee ñu xam ne tel naa leen yëg naa leen di ku bugg a ñaaw ci su diine si diggante diine yi dama ko dul nangu boo e, ànd ak Oustaz Ndour mbaa Abibou Tall nga wax du ñaaw ci katolik dinañ la bomate luñ ko tey de mm-hmm. ndax am nañu xaarit comme l'abbé Jacques Seck bu mm-hmm. xam ne itam ponkal naa leen li ñu doon waaw mm-hmm. niñ koy alxuraan dafa ne bu nekkoon yàlla ñëpp a nekk catholique mbaa yahudiya mbaa musulman waaye yàlla nee na moom la nekk dinay bari kañ ñu rewoon ci jëf yu baax parce que bi kon xayraat na ñu rewoon ci jëf yu baax parce que yàlla la neex daal mu am ndey camoon ak ak gauche droite mu am góor am jigéen ak leneen di kon bu ñu jël place su yàlla comme yàlla dafa bëgg daal qu'il y ait waaw nañ ko ko nangul ba tax it fii Sénégal comme déjà balaa diine di ñëw dañu bokk bu diine bi ñëwee waruñu xaaj su ma côté menu ndey am na ñoo xam ne ay musulman lañu ñi ay su ma dëkk bi ma ne su ma kër gi Demba Seck a fa Ousmane Seck fa Birama Seck a fa Aliou Ndong Aliou Ndong yaayam ak sama papa bu ko ndeer mu indi woon ma ay doomam yu nekkoon Banjul ci at ne waa Jacques jël suma doom yi nga jàngal leen di defarkat ma ne ko déedéet dinaa leen jàngal waaye noo dem catholique lu yar ma gisuma lu ba lu bon ngay def ci ma naa leen ci bàyyi waaye du tere ma jàngal leen waaw parce que ma ne ko non non Aliou Sandi tu es mon cousin ñooy lekk ci ndab yi ba tey sa doom yi sumay doom lañu ñu jur ca islam mu doy la du ma leen def rek soxlawul parce que li am solo du islam du musulman du chrétien ah ah bi moo am affaire diine baax na waa yoru ko lu ko yor xol bi parce que boobu sax diine ba baaxee si sa xol baaxul safara nga jëm ngay labe ngay élimaan sa diine baax sa xol bi baaxul doo dem kon xol bi daan nañu fexe ba xol bi mun a toppa diine bi ci li baax xol bi baax diine baax rek incha allah bu ko defee ñun ñëpp dañu lay aljana bés la incha allah ko yàlla def eh, ci loolu ñu ñëw ci décision yi nga xam ni eh, maanaam jàngu bi jël na ko mhm. ci li ko waral nag ku ne xam na ni eh, maanaam balaa bi nga xam ni yàlla wàcc na ko ci àdduna bi yëpp mhm. te Sénégal mucc ci muy mbas bi mhm. ñu ko xam ci coronavirus bi kilifa yi maanaam réew mi jëloon nañu ay dogal ngir arrêté woon li nga xam ni rek mooy daje yeeg yooyu ci jàngu yeeg yooyu waaye bañ ko àjjee tamit église bi moom dafa jël Euh, kilifa yi église jàngu bi dañu jël seen i décision bopp ni ba léegi mhm. ñoom dañu ñu permettre benn daje ak xew-xew ci biir jàngu bi ban gis-gis nga ci am c'est-à-dire euh, li jàngu bi dafa baax dem bañ a def rassemblement bi dafa baax waaw ñu fexe ba loolu gën fi yàgg ba feebar bi dem go euh, génn fi complètement balaa ñuy def jaati hmm. parce que buñ ko ne bu fekkee ne dañ ko wax noonu la ñu arrêté ba dem ne jooy na ñu commencé waat mu ñëwaat ah dañu war a def lii nguur gi bugg a lii rek baam ñu yàgg ci ba xam ne yëpp a jënd nag su ko defee nag eh, lamba yi fii ngente yi fii et cetera ñu recommencé ko waaw que du du euh, gouvernement bi dafa soxla de lu baax la gis bañ nag ñu de loo xam ne bu ñu ko defee du ñu jég bu ñu amee rassemblement am ku ci feebar jox ko ni du sotti di kon ñun ñoo war a xam ne li gouvernement bi bugg a suñu jàmmale ñun. kenn waru kaay baax kañ waruloo fexe ba nit dina ci raw mm-hmm. ñu fexe ba gouvernement lii ma bëgg a daal ñu jiitu ko ci nekk ci balaa ja jama di ñëw totalement mm-hmm. ci dëkk bi ak réew mi ak ci famille mm-hmm. loolu am na solo euh, ci décision yooyu tamit euh, nga xam ne euh, kilifa yi réew mi ki nekk si bopp bi yàlla def muy son excellence président Macky Sall ak gouvernement am ñu si liggéey yëpp. mu nekk lu am solo waaye tamit bëggoon nañu xam li nga xam ni ku wax. Euh, communauté chrétienne dañu fonk li nga xam ni mooy euh, funérailles muy dëj dañu fonk tamit li nga xam ni mooy célébration mariage wala communion mm-hmm. te loolu lépp dañu doon wutali ñëw ci jàngu bi mm-hmm. euh, loolu mën nga ñu wax jamono yi bu loolu yëpp taxawee ñi nga xam ni toll nañ ci diggante yooyu nan ngeen di def ak ñoom. amoon naa mariage bu ma waroon def keroog il y a une quinzaine de jours dama ko ne ah ah xaw ma may waaye église c'est pas la peine du mun a nekk labe réew mi jël décision ngir suma diine ma di ci def ne munuma ko ma ne lii ngeen bëgg a def mun nañ ko def après waaye duma def mukk loo xam ne baaxul ci dëkk bi warul ci dëkk bi waaw ce qui fait que labe bu fi ne frère bu fi ne ñi jiitu di diine bi ku ci nekk yaay jëkk a respecté li gouvernement bi bëgg a pare wax sa famille bi bu ñu waxee ne am na ñu ko def man dem suma famille bokku ci suma nu fa bokku ci parce que xam na ne du ma mun sol sol sutaan nag koo xam ne yaay yàq réew mi def anti anti civisme ci suñu tur kon du sotti du ma ko dul nangu dégg nga kon dañuy fexe daal bi nga xam ne daal mooy jàmm nit ñi mooy tax nit ñi gën a baax ñëpp musulman chrétien ak ñu ko doonul gën a def lu baax lu daal ba ñu Sénégal daal raxaka dolli waaye ñoom daal. lu lu ñëw lu baax rek ñu ca jiitu incha allah. loolu am na solo euh, ci ba tey rek siège boobu la ñu toll euh, ku ne xam na ni dafa am fête boo xam ne dafa am solo lool ci yoon chrétien mm-hmm. muy Assomption nga xam ni ginnaaw suba. incha allah muy tombé le 15 août. nga xam ni surtout ndaw chrétien yi ak ndaw jullit ci Sénégal sax. Mm-hmm. ñëpp dañuy ànd euh, célébrer ko parce que loolu mooy nekk la charme. bi nga xam ni mooy dialogue islamo-chrétien bi am Sénégal mhm. su 15 ñëwee doo xam xamee jeune musulman bi doo xamee jeune catholique bi bu tabaski ñëwee korite doo xamee jeune chrétien bi doo xam xamee jeune julit bi mhm. alors loolu tey ak situation bi ni mu demee nii nan la ñu fas yéenee euh, célébrer fête boobu il est clair que euh, Théodore Adrien Sarr Monseigneur Benjamin Ndiaye Monseigneur nekk Sénégal d'accord nañu wax ne ñun Monseigneur leen wax ne bu leen fi def benn rencontre de quelque nature que ce soit parce que yàlla boo ko jaamoo sa biir nekk mu nekk mu dega ko boo ko jaamoo fi ngay euh, euh, préparer sa cin mu dégg ko exemple bu bon daal waru joge si ñun catholique ñoo def yi ah, ah, ah, duñ ko di def même bu amuloon amuloon feebar ñu ne waru ko def raxakadoo nag incha allah bu dul ku naan ba ba sa ani sa tànk fale doo fi gis ñett ak ñeent daje lu mm, que war ñu jox mais que minorité fii di joxe mauvais exemple rafetul ci jàngu bi incha allah duñ ko def. loolu yaakaar naa leer na ci suñ mbokk surtout chrétiens yi nga xam ñoo ñuy seetaan ci message bi nga xam ni euh, mi ngi jógee ci per abbé Jacques Seck euh, ci li nga xam ne rek moo jëm ci euh, fête d'Assomption bi nga xam ne mooy 15 août ñu koy célébrer ni ki samedi incha allah alors ci loolu li nga xam ni tamit beneen xew-xew la nga xam ni ñu ñëpp ñoo ko bokk muy côté chrétien yi mu côté jullit yi muy màggalu Touba xam nga fan yi yaakaar naa soo dégloo média yi ñu ngi wax ak euh, situation feebar bi mm-hmm. ni mu demee yooyu dina am du am mm-hmm. ñu bëggoon a xam abbé Jacques Seck mu indi benn gis-gisam jëme ko surtout si ku tedd kooku di Serigne Touba. ah Serigne Touba nit la ko la parce que ñun ñëpp ñoo koy magal na nee naa la y a quelques bi ma génnee euh, Njaflaf feetu Touba bu amee may jël sama oto. maa Oustaz Ndour ñu dem fekke ko ba mu jeex ñu ñib si ci waawoon noonu waaw comme dama xaw ma rek nag te amatuma oto ensuite ma jël retraite lii moo tax gisatuñ ma mais il y deux ans boo euh, fête bi euh, ci euh, famille Tidiane ne ne la bésakati waaw waaw parce que munoo nekk a élimaan mbaa labe lii yàqu jóge ci yow ah déedéet waaye rafetul waaye bu ñu ah ak labé daal lu fiy lakk bu ñu ñëwee rek incha allah ci ñaan ak jëfin day fay waaw loolu mooy suñu walla gën a ñaggasal mbir mi du liggéeyu elimaan du liggéeyu labé waaye labé bi moo fi jaar elimaan moo fi jaar mu gën baax daal nii lañ ko bëgg waaw ak lu métti métti bu ñu ñëwee ñaan daal incha allah waaw am na benn bés la dañu fa ma dem eh, eh, Tiwaawoon fekk jigéen ñi ak góor ñi def benn ram bu ba ma yegg se Oustaz bu bañ gisee rek ram ba ñoom ñëpp ñu def ci ma ni Oustaz <laughs> mhm. dañ may gis ñëw ma ñu xam ne fii laa bokk waaw mhm. comme ñëwati naa nag ku nekk ci ñëw ñëw nag di ma su di ma nuyu woon waaw nii la ñu bëgg Sénégal mhm. waaw. kon yow ci sa gis-gis daal ci màggalu euh, gi nga xam ni moom la ñuy jagleel sëñ bi donte situation mbas mi mi ngi fi war nañu am lu ñu def daal ba màggal ko daal. waaw parce que soxlawul ñu di dem di daje waaye ku nekk ci këram boo xam ne am na mun na na jaamu yàlla ñu man mi nga xam ne dañ ma doon invité may dem te mënoo dem naa jàngamee ci suma nekk pour que ñi gën a julite Sénégal musulman gën a julite ñi gën a nekk tijaan nekk tijaan nekk nekk euh, murid nekk murid ak ak waa Yoofeen waaw laa yéen waaw waaw ku fi feetoo ngir yàlla daal dañ koy ñaan mu dem ba jeex ca loolu parce que bu ca jeexee rek produit euh, euh, profit bi ñoo ko moom bu musulman génnee nekk musulman correctement njëriñ na bu bonee nag dinañ ko yëg bu catholique catholique itam demul ba jeex ca euh, li mu nekk du sori waaye boo demee ba jeex rek loo ko fi ñaan ci anam ngir réew mi baax daf koy joxe ndax looloo war nii lañu bëgg daal réew mi ci loolu aussi euh, ndax euh, relève bi comme produit macha allah bu mel ni Abbé Jacques Seck ndax yéen yéen koy préparé ci jàngu bi pour jalago islamo-chrétien bi gën a dëglu euh, dëgër ci Sénégal wax ma Sénégal sax mais ci Afrique ak àdduna bi yëpp. c'est-à-dire boo demoon tey Joal mbaa Fadiouth mbaa Diembéring mhm. boo woowee dialogue bi wala dañ koy dialogue bi du la bés ko yor ñun dañ ci juddu di ko doxal ba tey waaw eh, bañ ma ànd ak Ousmane Ndour ñu yóbbu benn oto dem ba Ndar wër Sénégal yëpp pour wane ne li la ñu dund ba ñu demee eh, booy dugg benn village wuree Kasam li ma fàtte tur bi xaw ma dara bañ fay marché bi daal <laughs> bañ ma xamee rek la la besek Ousmane Mali waaw ma maa fàtte dëkk oriental hmm. waaw waaw la besek la besek Ousmane ma ne ko Ousmane dañ may dégg ma wax lu baax ci si suñu diggante hmm. tey nag ñu gis ma hmm. ñu àndaa maak yow ñu xam ne li ma doon wax moo am yow usa suma doom nga nekk suma bi ma yóbbu la Makka li ma boo demee nga laalal ma xel bu ñuul ba te def nga ko nii la ñu bëgg Sénégal que fu ñu romb da ah ah ah Labe Seck ak doomam Oussa Ndour waaw dem nañu ba Ndar waaw dem nañu ba Jembereng ba euh, fu ne pour nit ñi xam ne diine waruñu jaxas bu ñu diine diine jaxas rek moo ci dugga waaw ma waxaat ma waxoon ba ñu dem ba Madina Fadial maak Oustaz ca at yale ma gis toiture yi petite mosquée yàqu <laughs> waxuma de dañu ñëpp ma ne oustaz ñu jënd douze ans douze ardoise zinc douze parce que boo nekk ma ko demal yi ma dina faa jaar nga def élimaan ba dafa jooy de yegul xamul ku def oustaz ne ko abe abe sa abe boo nekk Joal kii du la beddi <laughs> oustaz boo demee nga ne ko ñaanal naa ko yoon ma waaw waaw waaw parce que moom bañul mais ngelaw wi moo moo yàq euh, mos ko bu ndaw bi may na ma wax ma ne defee kañ ma defar ko te yëguma ko te taaguma ko de ma ne usa boo boo gisee rek waaw boo usaat ñëw di ko dama ne la mu mujj a ñëw wal ma ne ko waaw jotewu ma ak yow de allah mi ci kaw laa defar këram de du sa kër këram la am naa ko mun naa ko kañ ma def ko mu ngir moom du pour tiitar nag ma ko gis bu yàqu rek ma xam ne war nañ ko jégal ma waaw xam nga kooku boo ko waxee lu ñaaw ci labe bi du sotti <laughs> te du labe bi looloo war ci diine yëpp ku fi dëkk ak nit muy murid muy tijaan muy katolik muy lii ak laa séeréer u leneen may ko ci rek mun nga ko def te doo loru defal ko ko su dee boo ko defee nag bu loru doo ko ko defal waaye bu amee moyen daal nga def ngir yàlla nag buñ la gërëmee ça va buñ la gërëmee sax moo gën a baax ma def rek ñu bàyyi ma ak yàlla mi xam ne moo moo yore pay gi moo mooy gën a baax ci man walaay Euh, ci loolu euh, bala ñuy jeexal euh, jataay bi rek ndaxte waxtu mi ngi ñuy dab li nga xam ni moo jëm ci ba tey appréciation bi nga xam ne jullit yi ñu ngi koy am ci yow certainement catholique yi aussi tamit ñu ngi koy am ci yow ndaxte kuy def lu baax ñëpp lay bëgg mm-hmm. ndax ni ngay dugg ci xuuse ci géewu jullit yi bu baax a baax a baax lépp rek ngir defar du ñàkk mosul ñàkk ay katolik xaw ci gis seen bopp wala. waaw c'est-à-dire <laughs> mu ne ne waaw l'abbé Jacques na dafa ëppal mm. ah kañ. waaye nag dañ koy wax ba ñu ne ma la Jacques li ngay def nag ne ko na hmm, ku déggal li may wax ba mu duggal sa bopp di nga xam li may ut lan la bëgg senegal jama am Sénégal di kese ba ñu ne kii makala la jóge ñu tàccul ko waaw. kii jógee Rome ñu tàccul ko kii day waaja falu ilimaan ñu dem ca. démb rek kii dañ koy fallabe bañ may fallabe palmarin mm-hmm. élimaan yi ñoo jóg di Babacar Sarr mm-hmm. ne labe suma rakk la parce que maam ak suma maay ak maamam ak suma di eh, cosaan séeréer mm-hmm. mu ne labe suma rakk la muy dëggit kenn du fi dogal loo xam ne waaw Babacar Babacar Sarr suñu suñu kenn parce que dañu xam ne balaa diine ñëw suñu der moo fi nekk ñu bañ nag diine fi ñëw yàq ko au def ko war a dëgëral loolu moo taxoon ba ma gisee Demba Demba. ma Demba Demba dem na Casamance dem na jàngi alxam ma ne ko déedéet du Casamance waaye hmm. ma fexe ba mu ñëw ma ne ko acca ñëw def ko ci po dans le bateau ko demal Tunisie foofu la xam-xam wàllu hmm. mu ñëw mu ne xaar ah, kasa mais ko ci Victor Cabrita à Anne Mariste mm-hmm. Victor def ko professeur d'islam et d'islamologie fa la dem ba am retraite mm-hmm. de tous les villages de tous les imams de la région c'est le seul qui a une retraite bu duuf mu ngi koy lekk Palmarin <laughs> waaw nii la ñu bëggee rek mu di. solo <laughs> eh, dafa am laaj boo xam ne ji nag laata ma lay jox euh, kàddu gu mujj gi dafa jëm ci euh, santu sekk bi. xam nga bi ñuy wax waaw bi ñuy wax ci euh, ci téléphone barke démb. Euh, maa ngi la naa man sama maam Seck la sant te ci biir wax sànq tudd nga bar ñi te sama maam yooyu diggante Bargny Tëngéej Ndakaaru la sekkeen googu mm, euh, léegi ci cekkeen googu bëggoon naa xam cekk gi fii la jógee dem Palmarin wala dafa am cekkeen bu nekk Palmarin waaw wóor na ma ne cekkeen dégg déggantaan mm-hmm. eh, boo koy udde nga dem côté Louga mm-hmm. xaw na sori nag mm-hmm. waaye dama amoon chance benn benn at la besok curé de la ancien curé de la cathédrale dafa ma loolu nag mu ne dafay moom waa Gurel la day dem Louga uti cosaanam te man la bëgg ñu ànda mm-hmm. <laughs> yàlla mën a liggéey mm-hmm. ñu dal di dem ba Louga mm-hmm. dem ci quartier est de Louga fekk foofu benn maget bu xam ñu wax ko suñu di mu mu nekk soog ak sec te xale moom yóbbuwoon quartier gi ñu dem ba ci benn kër fii gis nga kër gi mooy seen cosaan village bi fii la tàmbalee dem fale boo dindee ñii fii Louga cosaanam deñ ñi fi nekkoon nag sok an sok mu ngi ci sek a ngi ci ngi ci ak jaw ma ne xëy ñaar ñu de tudda di ñoo fa gën ko jeexal ma toog di foofu laa nekk ak la be gis foo xam ne sekkeen bi daal fii la jóg ma mm-hmm. parce que moom moom laa gunge woon mm-hmm. ndekete yoo fi ñu koy waxee cosaanam mm-hmm. fooy mos fa cosaan a carte est Louga foofu la sokkeen yi jógee ak sekkeen yi ma kontaan ma xam ne waaw xam naa donc suma ay racine grâce à l'abbé Sok bi ma ma gunge woon Louga ñu fokk ay mag yu maget ñoo xam ne nag dañu xam béréb ba xam cosaanam bi na mag bi fii waaw gis na quartier gii fii la sekkeen gis na laale nii boo leen dindee Louga du amati cosaan est-ce que loolu yaakaar naa ni leer na ci ñi nga xam ni abbé Jacques Seck Seck bi fi mu cosaanoo dont euh, Sénégal moom sant dëkkul fenn comme ni ñu koy wax foo dem fekk ko fa mais da ciy baax mu indiwoon ci ay leeral xam naa ni waa Louga yi ñuy seetaan euh, ak ñi sant sekk dinañ gën a kontaan ci histoire boobu. lebe boobu bari ci in ndike ci ñuñ la jógee maamam ci lu ñu <laughs> waaw loolu fierté la ah, ah, bu baax a baax incha allah kon ci loolu rek euh, waxtu wi li ñu cërale woon daanaka mu ngi dem jeex bëgguñu woon sax mu jeex ndaxte suñu jotaay ak yow moom toujours dañuy bëgg di duy rek incha allah waaye nag euh, yoon yemu ci benn. Euh, du amati waaye buñ ko jeexal bu jeexul nañ ko defaat yeneen incha allah que Dieu vous que Dieu vous garde que Dieu vous protège que Dieu protège tout le monde uh-huh. uh-huh. tal ko uh-huh. tal ko tal ko tal yàlla nga dami amin uh, ci loolu uh, bu fekkoon ni tey nii da nga am message boo xamante ni ji mm-hmm. surtout ak crise bi nga xam ni dafa wër àdduna bi mm-hmm. te li ko waral mooy mbas mi comme ni ñu ko waxee ci ndoorteel ak uh, li nga xam ni fi mu ni nii jafe-jafe yi bari na mm-hmm. ci wàllu société bi ci chômage bi ci emploi bi ci ñi nga xam ne sax ñu doon liggéey seen liggéey demetul noonu mm-hmm. revenu économique bi tamit fi mu toll nii am na ñoo xam ne nu mu doon demee demetul noonu mm-hmm. mu métti fépp léegi tey yow comme yàlla def nga nekk nitu jàng mm-hmm. nekkul nitu diine nekk kilifa tamit ci waxuma sax si si Sénégal mais ci église monde bi yëpp ak diine islam bi yëpp tey boo amoon message boo xam ne da nga koy jagleel ñi nga xam ni ñooy adduna bi rawatina sénégalais yi lay seetaan ñi nekk ci réew mi ak bitim réew ban message lay doon ci situation actuelle. Eh, comme feebar bu soxra ngi ci réew mi daal ñu def waa nguur gi wax ñu moytu di dajo bu ma teg ci nag di ñaan yàlla ñi ma dégloo ñi ma dégg ak ñi ma dégul yàlla may leen wér-wér le wér-wér le wér-wér le am tuuti diine ci xol tuuti diine ci xol tuuti diine ci xol ak ci caractère yàlla na yàlla continuer barke senegal parce que xamuñu kan ay musulman ak catholique yoolu leen loolu tiitar la yal na ko yàlla dëgëral mu jëm kanam ku fi ñëw fii Sénégal fekk ñu fi daal yàlla boo dugul ci suñu suñu déggoo daal bu ko ñu ko yàqal yàlla bo suñu dee joxun la dara daal nga bàyyi ñu ak ñu ñàkk daal fii daal musulman chrétien animiste daal dañuy ñaan yàlla rek ñëpp ak nite man tax nit mu am nite rek bu ñu nitee nañu julitee bu ñu julitee yàlla gën a kontaan yal na yow loolu eh, law ci réew mi duga ci kër Sénégal li yëpp ak fa ñu mën di taxaw amin amin ali yal may la déglu voilà kon mbokk yi tey ñu amoon mbégte eh, di dalal ki nga xam ni rek eh, mooy abbé Jacques Seck nga xam ni kilifa la goo xamante ci jàngu bi waaye kilifa la tamit ci Sénégal kilifa la ci Afrique kilifa la ci àdduna bi yëpp ci li nga xam ne mooy diine te diine rek moo ko ñor moo xam diine chrétien la moo xam diine julliti la moo xam juif yi moo xam ñu mati doon li ko euh, soxal rek mooy ñëpp ñu boole xol yi euh, jublu ci suñu borom bi subhanahu wa taala ndaxte si moom la ñuy jógee ñu ñëpp te foofu la ñuy mujje yàlla na yeex kon ñu ngi koy ñaanal yàlla gën ko fi yàggal yàlla gën ko fi euh, tamit saxal ci li nga xam ni rek mooy lu baax li nga xam ni mu ngi koy dox saa su ne eh, ngir jullit yi gën a ànd ak chrétien yi gën a booloo ngir tamit àdduna bi yëpp nekk ci jàmm eh, rawatina Sénégal kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di jaajëfal bu baax a baax suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñoo ñu doon bàyyi xel ci biir émission bi di am yaakaar ni tey am ngeen émission boo xamante ni ji xaw ma bu leen dul woon neex waaye dina leen neex te du am xaj seen incha allah muy chrétien bi muy jullit bi muy ku manti doon kon ñu ngi jaajëfal tamit euh, sénégale yi nga xam ñoo nekk ci diaspora bi yëpp di ñu seetaan di jaajëfal tamit kilifa yi diine yi moo xam chrétien yi la moo xam julliti lañu moo xam ñu nekk ci beneen diine la ñëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye di jaajëfal sama équipe technique bi nga xam ni ñoom laa àndaloon ci liggéey bi caméraman bi Ibou Ibrahima Bari ak euh, Cheikh ak euh, umm xayr yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ak di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi Euh, di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah rabbi euh, te di am yaakaar di dajawaat ak suñu papa suñu maam suñu kilifa di Abbé Jacques Seck ilallahi majukum jamian amin amin merci beaucoup kon ñu leen jox rendez ci beneen numéro